Imam Ahmadou Mactar Kanté ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi nuyu waa équipe réew mi yëpp. di di di sawar lool euh, tontu seen i laaj. d'accord Imaam euh, ñu nekk ci euh, waajtaayu tabaski tey jii ñu bëggoon a xam fête bi lu waral justement ñu koy màggal. waaw lu tax ñu koy màggal. Mhm. mooy feetu tabaski. Mhm. ñu koy wax ci arab boo demee ci téere fiq yi dañuy wax idul adha wala idul kabir mooy feet bu mag a mag bi. Mhm. wala nga ne mooy feetu rey bi maanaam. Euh, sunu maam Ibrahim ndaw bi yàlla boobu euh, dafa gis ci gént euh, ne sunu borom daf ko sant mu rey doom ji. Mhm. noonu la ko noonu la ko noonu la ko déggee daal moom ci gént ba. du ma dugg nag ci détail bi sax ci gént boobu. Mhm. ni ko nit ñi faram-fàccee borom xam-xam yi. Mhm. mu wax ko doom ji Ismaïl. kooku ne ko bu fekkee lu la borom bi sant la def ko donte loolu moom sax tuddul borom bi mais daf ko ne rek li la sant def ko. moo tax ma ne bëgguma dugg ci détail bi mais alaa kulli xaal mhm. Ibrahima dafa jàppoon ni euh, borom bi daf koo sant mu rey doom ji mais li ci am solo mooy ba mu jàppee ni loolu yàlla ko ko sant rek mhm. dafa taxaw pour def ko te loolu xam nga ni yombul ci bakkan mhm. te fekk en plus doom ji nekk xale nekk ba nekk xale bu bu ñëpp bëgg koo gis rek bëgg ko xale bi commencé di ko doxal ay soxlaam xam nga foofu nga la waajur di gën a soxlaa doomam foofu nag borom bi ñëw nag pour nattu ko ne ko nag léegi euh, sa doom jooju est ce que pare nga pour pour rey suma la ko sante mhm. mu ne ko pare na pour def ko kon yonent yàlla Ibrahima taxawaayu ngëm boobu nga xam ni bu yàlla santaane rek gisatul dara loolu mooy loolu mooy cëslaay euh, mooy cosaan ci euh, feetu tabaski yonent bi salaa salaam daal di dundalaat sunna boobu pour àddina bi bañ ko fàtte ba faw na nga seetlu xoolal nasaraan yi fàtte nañ ko yahud yi fàtte nañ ko pourtant mi ngi ci tawraat mi ngi seen téere mm. mais xoolal yi ñoom dañ koy sunnaal di Euh, fàttaliku kon loolu mooy cosaan ci tabaski moo tax képp koo xam ni euh, mu kàllaf nga. Hmm. Euh, te mën nga ko bisu tabaski bu jotee nga waajal te nga nga rey gàtt màggale ko borom bi subxanahu wa taala ak di ko fàttalikoo. taxawaay bu màgg boobu nga xam ne yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam taxawoon na ko. et justement wax nga ko ku ko mën na ko def tey jii lan lañ leen dig digal maanaam recommandation yu ñu war a def ci feet bi. waaw ci ci bisu tabaski bi. Mm-hmm. recommandation yi mooy euh, comme moo tax boo tuddee boo gisee ñu tuddee ko iid feet moo tax kon feet la. Mm-hmm. moo tax ñi nga am na ñoo xam ne ñu ngi bëgg juum bëgg cee bëgg cee dindi feet bi. Mm-hmm. waaw kon feet la bu ñu waxee feet nag aussi mooy xol yu sedd neexal kër ga ak yu ni mel. Euh, col ko bu rafet ak yooyu moo tax léegi nag li nga xam ne moo ci jëm ci wàllu jaamu yàlla bi mooy euh, ku am kon sa alal bu la lew bu la lew. nga wut ci xaru tabaski. Euh, wala bëy et cetera. Mhm. kon na la lew de kon euh, xar boo gañee ci carte xaalis ak ay tombal ak yooyu moom mënta nekk xaru tabaski. d'accord léegi euh, ñaareel ba mooy xar mi am na melokaan yu mu war am loolu xam naa dinañ ci ñëwaat. Mhm. mais kon li nga xam ne nag moom lañ digle ci bés ba. Mhm. mooy nga yeewu ak jàmm nga sangu set nga lacc koloñu nga maa wax lacc koloñu rek mais nga xeeñ lu neex. nga voilà nga sol yére bu bees peq soo ko amee yére bu bees peq mm. pour màggal bés bi su fekkee ni amuloo ko nga seet yére bu bu baax euh, nga fóot ko ba mu set euh, defar ko ba mu jekk nga sol yow ak sa njaboot mm-hmm. ngeen dem nag euh, ci bërëb ba ñuy jullee moo xam ci bayal ba la moo xam ci jàkka ja la mm-hmm. xam nga bu njëkk ba ci bayal rek lañ doon jullee bi bi yi demee ba xat mm-hmm. bayal bëreetul moo tax léegi ñuy julli ci jàkka yi léegi nag yenn saa da doon ànd njabootam même ay soxnaam dañoon ànd ak moom dem ba ci bayaal ba julli même jigéen boo xam ne sax mënul woon julli ci bis boobu ndax dafa tolloon ci ay fanam. Hmm. doon na ñëw euh, taxaw ci wet ba di déglu xutba imam bi euh, mais bu dee ci jàkka la jigéen boobu du mën a ñëw kon dem ci jàkka ja julli ci ginnaaw imam bi déglu xutbaam dellu kër ga euh, rey sa ku nekk ñaanal sa morom yàlla nangu la sa tabaski mbaalante ak. Hmm. kër gi ñu fexe ba togg lu neex ñëpp baalante ak te kër gi neex donte woon sax bis boobu lay doon Hmm. loolu la ñuy tuddee kon feetu euh, feetu tabaski. tabaski nga am loo junj sànq muy lu am solo muy melo gi euh, nan la njur googu war a mel justement. waaw euh, njur bi nga xam ni gàtt bi nga xam ni moom lañu ñu war a loj moom la ñu war a rey. Hmm. dafa am ay melokaan te boo ko seetee ba seet melokaan yooyu nekkul leneen lu dul mooy tooray xar moo xam ni. Hmm. teg ko bët rek tax na nga seexlu ko kon tamit yàlla dina ko seexlu parce que yàlla da nga koy jox lu rafet. Euh, te d'ailleurs boo demee ci ay alxuraan bi nga xam ni mooy tudd euh, sunu borom ni mu dañ koy wax ci wolof jotu. Hmm. mais comme xale yi déggutuñu wolof hmm. ni mu remplacer Ismaïla mu remplacer ko ak benn xar. Hmm. mais xam nga nu mu ko waxee dafa ne wa fadaynaahu bi zabihin azim mu ne ñu wéccee Ismaïla ah. xar mu yéeme xam nga loolu la wax kon xar mu yéeme. kon loolu moo tax ñu bëgg xar bu rafet bu baax. bi zabihin azim la wax rek xar lu tax mu dolli ci azim. un un un ce pas une bête immense euh, voilà tu vois. Mm-hmm. loolu moo tax ñu bëgg nag xar bu baax loolu moo tax yéen sa ne na ngeen wut xar bu baax bu ngeen di tabaski mm-hmm. ah euh, parce que looy looy rey pour yàlla mm-hmm. na rafet du nekk loo xam ni yow sa bopp da ko seexloo laal sax wala xar mi bu la jege woon sax nga ne ah ah, ah. Euh, xam nga loolu <laughs> nga ne da koy reyal yàlla day doy waat loolu moo tax ñu bëgg xar mu rafet boo xam ni boo ko tegee bët nii rek doo am loo ci sikk loolu sa veut pas dire que xar xar bu ponkal la dem mais na nekk xar boo xam ne boo ko xoolee di nga xam ne xar bu bu baax la. Hmm. leneen li mooy li ñuy bañ mooy ci turu tabaski ñëpp daal di feebar ndax lekk yàpp boo xam ni euh, xar bu feebar la loolu tam du jubluwaay bi euh, dañu bëgg ñëpp tabaski lekk seen xar seen yàpp xar ba pare dara bañ leen cee fekk moo tax la léegi bu yent sax la mu waxee ñeent yi na ngeen ci bàyyi xel pour xaru tabaski euh, mooy sànq waat fàtte naa ko wax sax tamit ci tubaab bi na na at boo xam ne na am au moins at ak lu topp. Mhm. loolu mooy mu nekk xar boo xam ne au moins mën a tëbu li ñuy wax ci foq. d'accord euh, bu ko defee euh, na nekk xar boo xam ni bu mu pat bu muy soox. Mhm. bu mu bu mu bu mu euh, nekk xar moo xam ni dafa ni ñu koy waxee encore squelettique dafa dafa dafa ràgg. Mhm. ba nga xam ne der bi rek moo tegu ci kawam. loolu yëpp boo ko seetee mooy boo ci xool rek. day day wane ni xar mi am na lu ko dal euh, wala feebar na euh, am na yeneen yu ñu ci dolli nag mais ëppal bi tam baaxul parce que yenn borom xam mi dañuy wax a wax a wax bàyyi vingt bàyyi trente ba finalement da nga naan est ce que xaru na am <laughs> bu mu lii bu mu lii bu mu lii bu ci lii am bu ci lii ñu ne waa ëppal aussi baaxu ci mais ñeent yooyu daal mooy yi nga xam ni bu dajee eh. Euh, xar moom matul tabaski mais nag bu loolu amul rek xar mi bu dee xar bu normal la rek mën nañ ko tabaski. imaam euh, ñu am euh, lu ñu nemmeeku fii ci suñu réew parce que nañoo wax lu dul sur la base de notre exemple tey ñi nga xam ne ñoo ngi yor ñaar ba ñetti soxna ndax loolu dafay baax ku ci nekk nga jox ko xaram wala benn xar rek mat naa tabaski. benn xar rek mën na tabaski benn xar boobu. Mhm. tabaski ku góor ki la tabaski sànq. Euh, wax naa ci tubaab bi. Mhm. ne li ci borom xam-xam yi wax mooy euh, ki nga xam ni moo ko war a def bu amee moyens yi muy góor. Mhm. muy jigéen. Mhm. te muy majeur. kon loolu du question ay euh, célibataire ak affaire marié. d'accord. kon même xale bu góor tamit bu amagul jabar te am moyen dafa war a tabaski noonu même jigéen bi nga xam ne amagul jëkkër dafa tabaski kon jigéen yi xuloog seen jëkkër yi di poñanteeg ñoom ak xaar bu duggee ci kër bi dafa seet dafa dafa sew ma génn yooyu yëpp jaru ko parce que bu ñu xamoon dëgg luy tabaski loolu yëpp du ko fi jar. du ko fi jar parce que euh, jigéen bi nga xam ne am na moyen. te comme mm. ni ko xamee yow nii mm. boo moytu sax yow yaa ëpp moyen téeméer yoon. <laughs> donc tey jigéen ñi ni ñu amee moyen <laughs> euh, waruñ fi nekk di xuloo affaire ay xaru tabaski a ngi naan ay parité ay jigéen bu mën góor ak bu am moyen mm-hmm. na dem wutu xaru tabaskeem ni ni ngeen di xottee ay yére yu cher dem ci ngénte yi di ko jaayante Euh, di tukki di ñëw war ngeen mën a am njëgu tabaski kon ko am sa njëgu tabaski nga nga tabaski sa jëkkër nag moom tabaski boppam lay toppatoo bu fekkee nag am na moyen yu tax mu mën a jox ay jabaram wala jabaram tamit mu mu jox ko xaalis ne ko boo bëggee nga tabaski. Mhm. loolu baax na cofeel la cadeau lay doon mais euh, du nekk obligation que euh, moom dafa war a wut forcément. nombre jabaram fu mu toll mu wut nombre xar bu toll noonu euh, déedéet mais su ko mënee defal leen ko lu baax la cofeel la. imaam ñu nekk tamit ci jamonoy mbas mu doon ñaareel yoon ñu koy euh, ma ñuy feetu euh, tabaski ci mbas mi mais atum ren lu lu ci soppeeku mooy cas yi dañoo gën a bëri tey jii lan ngay am pour voter en tant que donc. porteur de voix. waaw li li ma woote woon rek lu nekk tamit euh, wax nañ ma ci et cetera mais euh, xam nga euh, temps yi ñu ko doon wootee sax daaw daaw la de suma jumu naa ah, waaw boobu temps dafa mel ne sax léegi la gën a tar. léegi la gën a tar. voilà kon nag yaakaar naa ni suma ma soppee woote bi dinañu Imam Kanté moom lu xew bu fekkee ni ba mu gën a néew tar bokkoon naa ci ñi woote woon ne mën nañu ak julli jàkk yi et cetera. Euh, ndax yenn saa salaam jàngale ne dañoo war a daw mbas. Mm-hmm. ci tënk daal. Mm-hmm. Euh, jaru fi jaayante ay xam-xam ak nangam nangam fu ne nga wut fa ay hadis ci tënk daal. Mm-hmm. yenn saa li mu jàngale mooy mbas dañ koy daw. parce que nee na fu ngeen gis mbas bu leen fa dugg yéen ña nekk ca dëkk ba mbas bu ñu génn parce que temps boobu amuñu woon ay vaccin yu mel noonu donc loolu da doon tere mbas bi di tasaaroo. kon nag lépp loo xam ni mesure la ñuñ ko tuddee tey mesure bari ak nuñ ko mën a tuddee. te la mu wund ak jubluwaay ba mooy daw mbas. Hmm. loolu day dëppoog lislaam mu jeex tàkk léegi nag kon tamit fi mu nekk nii yëf yi gën na tar ba ñëpp jaaxle nañu àddina bi yëpp fi mu nekk nii ñi doon ñëpp a ngi commencé waat di reconfiner di kii ñii di kii kon tamit ñëpp xam nañ ni noonu la demee su ko defee kon fi mu nekk nii euh, bu ñu mënee euh, bañ a julli euh, mbooloo ñu def ko moo gën parce que l'islam dafay préserver aussi la santé publique surtout que Euh, julli mbooloo bi tam sunna la nekkul farata kon mën nga euh, julli sa kër julli tabaski bi tamit sunna la ak julli korité bi bu demee ba feebar mel ni am ni ñi mën nañ julli seen kër donc euh, mu jeex tàkk loolu ulema yi boo demee seen fatwa ñoom ñëpp loolu la ñuy wax léeg-léeg nga gis ay benn benn yuy xataraayu fii di wax rek mais mooy ñoo xam ni kenn du leen mës a laaj fatwa ci dara parce que duñu ay ulema mais seen seen conviction la rek di wax bu ko defee loolu daal mooy mooy mooy li ñu wax mooy d'ailleurs actuellement am na yenn chef religieux yu jël yooyu décision uh-huh. yooyu de ñun ànd nañ ci bu baax a baax ak tamit même ne foog ma dem tabaski ji xam nga tabaski dafa nekk fête familiale donc c'est normal en temps de ah, uh-huh. euh, am feebar amul xam nga même bu même bu sécurité amul woon ulama yi dañoo war wax ne ñi ñu tabaski fi ñu nekk xam nga tey ji bu fekkoon dañ ne la ay addu kalpe ñu ngi fees dell ci yoon bi diggante Dakar ak Thiès est-ce que ulama yi dañ naan la foog nga dem Thiès pour tabaski ji dañ naan la comme sécurité amul même pour aj Màkka bokk na ci condition yi sécurité bu guerre amee ci région bi yëpp foofu na olumaay dañ naan euh, bul ñëw kon nag léegi ñu def loolu moo gën léegi ku mën tam toog fi nga toog rek nga tabaski fa moo gën kuy dem tamit ne da ngay da ngay julli ji ndax nangam nangam wala da ngay dem sa sa gox nga fexe bàyyante xel ak les mesures barrières sa kéem kartan d'accord loolu lañ ci loolu lañ ci mën a wax. Imaam ñu jeexaleeg euh, ñaari euh, tabaski nga xam ne atum ren tamit dinañ ko dund suñu réew tey jii nga jàpp ne euh, ci tënk rek lan moo ko war a mën a saafaraal ci mim réew su ko defee ñuy feetandoo di parendoo. ci tënk daal li ko mën a saafara. Mhm. mooy ñu am benn kuréel boo xam ni ñëpp dañuy wóolu ña fa nekk ñoom ñuy topp weer bi saa su ne ñu mën na wax ni séntu nañ lii ak lii. la demee. Mhm. Euh, loolu mooy suñu problème parce que fu mu nekk nii euh, weer bi dafa am wute parce que amuñu kuréel boo xam ne ñëpp juboo nañ ci. Mhm. Euh, muy CONACOC boobu dafa nekk en crise sax actuellement comité provisoire ak ñetti coordonnateur kon loolu crise la <laughs> du lu ñu inventé il faut que ñu régler loolu ñaareel ba mooy foog ñu juboo ci ndax dañuy séntu ci Sénégal wala bu ñu ko déggee ci yeneen réew ñu ñu topp ko troisième chose ba mooy que est-ce que dañuy bàyyi xel calcul astronomique. Euh, wala déet donc yooyu suñu toogee ba waxtaan ba juboo ci rek danañ mën a trouver solution. d'accord Imam Ahmadou Mactar Kanté ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp foofu. Eid Moubarak. Eid Moubarak à vous aussi.